il faut féliciter une opposition qui a su mobiliser moi je suis je suis un homme politique et j'accepte une mobilisation d'une opposition mais je condamne la désorganisation oui pourquoi parce que contrairement à à à, à nous. ñun nag mosuñu am xëccu xoo mosuñu dóorante kurpañ mosu chaise mosul naaw. Oh. yow ban chaise moo fa naaw <laughs> ban dóorante kurpañ moo fa am. mais attends on a vu des chaises voler. non man non waaw ma ah vu des chaises volées on a vu des leaders huilés est-ce que duñu xoolaat ah, kon non non non dama ne on a vu des leaders chaises non mais je vous dis que man j'ai vu des vidéos yoo xam ne chaises volées wallaahi Sénégal nga wax ne yaa ñu ko je vous dis que j'ai vu des chaises volées hmm? doy na waat ba ñu xëyee nit j'ai vu des vidéos yoo xamante ni ñoom ñi ngi traité ñenn ñi de violence ñoom ñan ñoom ñan ah des personnes qui ñoom ñan non taxawu Sénégal des filles port porte sol ay yére taxawu Sénégal loolu amuloon fe. Euh, déet xam nga dafa am loo xamante ce que je veux dire mooy man li ma gis da nga ma ne ban appréciation nga wax ci manifestation ma ne leen il faut féliciter l'opposition par rapport à sa mobilisation. mais am na ay. des acteurs maintenant il faut condamner le problème de désorganisation. bon après man man personnellement dafa wuute sax.